yëpp yëpp salaam ami internaute amaat nañ mbégte ñëw jànnoo ak yéen tey nag ñu taxaw ay ndaanaan ay révélation yoo xamante ne wax dëgg yàlla si musique Sénégal dañ si am solo euh, fi ñu leen fekk nag muy centre culturel bu Douta Seck ñu nekk di préparer benn événement euh, foofu la ñuy xuusandi si li nga xamante ne si lañ leen fekk muy en pleine répétition muy fu Job sa beneen alors euh, fi may tàmbaleeg yéen mooy que ni ñu ngi nekkoon si mois wu mars di sargal jigéen ñu xuus mois ba tey jeexagul si yéen ngeen jàpp benn date muy le 26 euh, fi nga xamante ne moom mooy théâtre national Daniel Sorano ngeen di sargal jigéen euh, tey fi may door ak yéen mooy pourquoi le choix sargal jigéen. oui salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Bowa yaa ngi am Chérifou Diop Sovrène donc ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu ñuy suivre ci euh, ci ci site bi donc di nuyu ñëpp. pourquoi sargal jigéen euh, donc euh, ku xam Chérif Diop sa Brian xam ne ñu nekk jigéen ñi dañoom am coloré boo xam ne donc fasante fasante nañ ko fasante nañ ko ak ñoom donc lu yàgg euh, jël beenee ko ci suñu diggante ak suñu jur suñu yaay nga xam ne moom moo ñu sukk jur ndax yaay mooy àdduna yaay moom mooy moom mooy protection yaay mooy lépp boo waxee yaay rek donc muur nga jigéen suñu first album melokaan première morceau bi yaay la donc te yaay jigéen la jigéen mooy suñu soxna jigéen mooy suñu sister mooy suñu yaay encore donc jigéen mooy lépp euh, événement bi ñu teg ko Neweli Show tombeek suñu sorti deuxième album mu tombeek aussi mois de mars ku wax mois de mars xam ne mooy weeru jigéen ñi donc euh, mébét bi nga xam ne yàgg nañ ko am ci euh, sagal jigéen sargal ko jox ko cër njukkal ko mu tombeek weer bi tombeek événement bi ñu jagleel leen ko donc euh, ñu tuddee ko sargal jigéen war a nekk incha allah le 26 mars fële ci Sorano jigéen yëpp ñoo ko moom bépp jigéen bu nekk ci àdduna bi bés bi yow yaa ko moom. d'accord noonu c'est la mois des femmes mais comme vous êtes deux euh, sama côté droite xool moom tamit bésu sargal jigéen bi concept waaw mooy li Chérif wax rek parce wax na léegi sargal jigéen ci mois de mars la nekk jigéen ñoo ko moom te ñun boo xoolee. jigéen ñi bokk nañu gën a flowers ah, waaw waaw jigéen ñi bokk na ci li ñu gën a flowers di suñu yaay suñu marraine yi moo tax ñu jël moyen jox leen ko mais góor ñi accompagner mais jigéen ñi ñoom moom bés bi 26 d' accord jigéen ñi ñoom bés bi mais tey bu ñu desandee ba tey euh, si wàllu sargal jigéen ñi on sent souvent que ni seen ay titres dafay nekk ay titres thème mais ñu ko ëpp lu koy consommer jigéen ñi la. mu mel ni y' a une parfaite complicité boo xamante ne dafa jox seen diggante yéen ak jigéen ñi. waaw booy comme li mu lay wax fans yi ci ëpp ay jigéen lañ donc ñoom ñoo ñu njëkk a show love ñun aussi vraiment mënuñu def leen lu dul delloo leen ko suñu soirée yi ñuy def concert yi jigéen ñi ngay gis ñooy gën a show mais vrai que góor yàlla dañuy bëggee parce que ñuy gis seen bopp ci ñun mais Cherif Diop Brand xam nañ ne yaay booy ñoom ñooy seen ñoom ñoo leen téye quoi voilà donc euh, way nañ leen ci Linguère way na leen ci Neemaye way na leen ci Daagul way na leen ci album bu bees bi aussi donc euh, lépp lu ñuy def dañ leen ci jiital a chaque fois donc euh, lu ñu ci jublu rek mooy di gën a wane valeur bi nga xam ne jigéen am na ko ak cër bi nga xam ne borom bi cërale na ko ko quoi. d'accord euh, événement bi ngeen fas yéene fi nga xamante ne moom mooy théâtre national Daniel Sorano ak fi nga xamante ne actuellement Sénégal bi ñu génnee si Covid beeg léegi yàggul alors loolu dafa laaj ay moyen ndax da ngeen dem ak seen ay propres wala dafa ñu leen accompagner si sargal jigéen waaw sargal jigéen ñi ñi ngi koy liggéey ak orchestre national boobu jàpp nañ ci direction des jàpp nañ ci mooy ministre de la culture ak suñuy propre moyen bopp xam au Casamance ñëw na ñi ngi am ay partenaires ndànk ndànk mais dañ ne woon pourquoi pas parce que y a quatre ans ñuy def ay affaire te defaguñ show bu mag ñu jàppoon show bu mag fekk Covid ñëw ci deuxième deuxième deuxième bi ñu koy jàppee nag mu tombeek Sorano ñu ne directeur bi am ay complicité yu am doole parce que ñoo àndoon Côte d'Ivoire ci FIMEA bi moom mu jox ñu salle bi ñu ne pourquoi pas duñ ko njëkkee foofu noonu après deuxième édition bi ñu yóbbu ko Grand Théâtre troisième édition bi ñu yóbbu ko stade mooy dafa ñëw naturellement quoi forcé wuñu dara lépp naturel la ñëwee am na ay partenaires yu si jàpp def nañ ci suñuy moyens tamit di woo gars yi tamit. d'accord yan surprise la ñu mën a xaarandi le 26. waaw surprise dina bëri ah surprise moom kenn du ko wax <laughs> mais li ma xam mooy dina bëri na gars yi waajal samedi bii boo xëy le 26 sax te mu sori neel gars yi samedi <laughs> ñoo xam ne ginnaaw suba la donc voilà ñi ngi fii Douta Seck nekk ci répétition yi mhm. gis nga équipe technique bi fi ne gis nga staff bi musiciens yi ñi ngi fii donc euh, gars yi ñi ngi waajal ay affaires yu deewaar mhm. yoo xam ne je pense que ku ñëw fee euh, di nga am satisfaction am na benn gars yi léegi premier tour répétition ne Fall fa ñu yokk billet yi de parce que lii dafa kawe <laughs> yéen yéen ci biir di ngeen ñëw xool joxe aperçu joxe capture capsule yu daw gars yi mën ko xool bu leen génnee lépp nag de ñamal leen ci gars yi tuuti rek ndax ñu mën a ñëw daw ñëw jënd ticket yi ñu ñëw